asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokkum jullit bi nanu dellu ànd maak yow ci benn xadis bu yonent bi aleyhi salaatu salaam jàngale woon xadis bi nag noon ko jëlee ci abu hurayrata yal na ko yàlla gërëm xadis bi muslim moo ko solo bokkum jullit bi xadis bi dafa bari ay jàngat lool waaye nag ñaari jàngat dong laa bëggoon maak yow nu bàyyi ci xel bu baax mbokkum jullit xadis bi ni la tëddee mbokk mi dafa am benn bés jamonoy tàngoor wu metti bëccëg jot yonent bi sallallahu alayhi wa génn ci këram di dox ci naaj wu tàng wi naaj wu tàng bi mu génnee mu seen abu bakar as-siddiq yàlla na ko yàlla gërëm seen ca wet ga omar ibn alxataab yàlla ko yàlla gërëm kon ñetti nit daje nañ ci mbedd mi ci jamonoy tàngoor wu metti waaye ñetti nit ñan la ki gën ci nit ñi muy rasulullah ka ca topp di abu bakarin siddiq ak ca toppaat di Omar ibnul Xataab ñett ñi daje nañ lu xew yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ni leen waaw lu xew lan moo leen génne heure bi ak naaj wu tàng wi ñaar ñeen ni le ni ko waa ah, yow yonent yàlla bi ñun day xiif gu metti rekk tax ñu génn heure bi dañoo xiif rekk moo tax ñu génn heure bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tontu leen ni leen ah moo ne day man mii it de xiif gu méttee ma génne heure bi manit kon nanu ànd nan dem ñoom ñett ñu ànd di dem di dem ba mu yàgg ñu dugg ci benn kër goo xam ne ab saxaabaa ko moom nu fëgg soxna sa ubbi ñu laaj ko ne ko ana diw sox soxna sa ni leen diw de dafa uuti woon ndox ngir indil ñu ko ndax ndox ndox dafa manqué fii ca noonu rek waaj a dikk saxaaba ba ñëw daa di kontaan lool ci yonent bi ak ñaari saxaabaam yi ànd daat ne alhamdulillah tey de am na ay gan yu mag lool bismillah agsi leen agsi leen ñu daal di agsi toog kon yonent bi ñëw na toog abu bakrin siddiq omar ibn alxataab saxaaba ba moom it agsi na teg ndox mim indi woon bi loolu amee saxaaba ba dugg daldi indi tàndarma ju bari tàndarma ju nekk ci ab cëgg indi tegal leen ko indi paaka jox leen ni leen dagg leen ci tàndarma ju tàmbali lekk indi leen ndox mu sedd teg ca daldi di yëkkati ab leget bëgg a dem ratt ca ca jur ga indi leen bëgg na wuti am meew ca jur ga indil leen yonent bi alayhi salaatu ni ko loolu ngay ratti day na nga bàyyi xel bu baax yonent bee koy wax de déglul ni ko da bàyyi xel ci loolu ngay ratt bul fekk am xar wala aw bëy wuy door a jur bees nga ratt ko kon su boobaa doom ja du am lum nàmp nanga ci bàyyi xel rattal boroom doom ju dëgër loolu la yonent bi wax saxaaba ba dem daal di ratt am meew indil leen jox leen ba noppi jël ab gàtt rendil leen préparé leen ko ngir ñu mën kaa lekk ñu lekk ba àggal naan nañ ba màndi fi mu toll nii suur nañ sant yàlla yonent bi xool lekk gi taabal ji lekk gi ba mu yàgg mu siggi ni ko abu bakar yonent bi de mu ni ko abu bakar omar wallaahi wallaahi lekk gii ngeen fi lekk tey ëllëg yowmal qiyaam sun borom dina leen ko laaj nu ngeen def ba am ko allahu akbar mbokkum jullit lii mooy xaddis bi yan ñaari jàngat laa bëggoon nu bàyyi ci xel maak yow bi ci njëkk mooy fi yonent bi waxee ne ko bàyyil xel ka ngay rat kon yonent bi alayhi salaatu salaam fu mu mës a toll ak situation ba nu mu mën a mel mi ngi bàyyi xel bàyyi ma yi nga xam ni amuñu xel mi ngi bàyyi xel ñi yàlla bind te ñu néew kàttan lool xoolal ak lim xiif xiif ak li muy mar mar mar mi ngi bàyyiloo xel waa ji ne ko bul ratt boroom doom ju bees borom doom ju ndaw bàyyi kook weenam ndax doom ju am lum dundee loolu lu mat bàyyi xel la mbokkum jullit ci li ñuy faral di jëf jànkonteel ci suñ dund gi moo xam muy muus moo dajeel wala kalbu wala bàyyi ma yii ngay dajeel faw nu am ci ñoom yërmande gu ñuy bàyyi guñ leen di bàyyi xel ndax ay muuminu yàlla lañ amuñu xel amuñu kàttan ñun ñi leen tane ñoo leen wala yërëm gis nga ko ni ko yonent bi jëfandikoo ca jataay booba nañu ko bàyyi xel bu baax ñaareel ba mooy biñ ñëwee waa ji jox leen ñu lekk ba suur ñu bég kontaan lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam xelam dellu ca yàlla sunu borom xelam dem ca taxawaayu ki yowmal qiyaam ëllëg ci xéewal yi ñu dund fii ci àdduna mbokkum jullit ndax bàyyi nga xel ki nga xam ne mi ngi lekk alal jullewut ndax ki nga xam ne mu ngi wër di ndax doomu aadama yi lekk seen alal mu ngi bàyyi xel lu mel nii donte yow dañu la kaa may nga am ko ci amin gu law lekk ko sant yàlla ci amin gu feex sa xel dem ci yow man ak taxawaay ba kon lépp lu waaye di def ci biiram na ko bàyyi xel nii suñ borom dana ko ko laaj bu yow man qiyaamee lépp lu waaye di wax ak di ko def yow man qiyaam sunu borom a ngi koy xaar te dana ko ko laaj bokkum jullit ñaari taxawaay yi ci xaddis bi laa bëggoon nu bàyyi ko xel maak yow donte jàngat yi bari na lool bokkum jullit nañu ko bàyyi xel yàlla na nu yàlla boole defal jàmm fi dunya wa fi axira defal ko mboolem jullit wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.